gars yi di dem Europe ñii di dem ay Suisse ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay Iran ci guddi di 23 tostal na ñeent fukki simili comme ni ñu ko baaxoo di defee ñu yeggaleen lenn ci xabaar ñeel diggante Israël ak Hamas. tey jii di gaaw ñaar fukki fan ak ñent ci weeru février dëppook fukki fan ak ñett ci weeru chambaan tàmbalee xabaar yi ca réewum Israël ca Tel Aviv di capital ba am na benn doomi réewu Israël bu jigéen bopp yóbbu nañu ko kaso la ko waral nag mooy dafa lànk ne du dem def service militaire moom daal nee na mbir yu doy waar moo am ci am réewam noonu yi mu amee ci réew mi itam noonu la amee ca bande de ba daal lii am moom bu dem di nekk militaire ndax daal li mu gis ni daal ni mu jaaxale adduna bi méttee leen ko noonu la ko méttee moom mi lool nag moo ñu bëgg kaso xabaar bu ñu sukkandikoo ca Al Jazeera juróom-ñetti bakkan rotaat nañu ca gasa tey jii jaare ko ci frappe yoo xam ne armée Israël ñoo ko daal defati def ko ci ak kër foofee ca Bandagasa mu juróoti ay bakkan yu daal di rot am na beneen soldat bu réewum boo xam ne faatooti na ca bande de Gaza kooki faatu nag kilifa la ndax am na benn bataillon boo xam ne moo ko daal di jiite moo nag daal di mujj ñàkk bakkanam tey jii keneen kon faatoo na ci armée bu réewum Israël. Saraya al Quds di bi jaar islamique nee ñu daal di nañuy ciblé tey jii benn bulldozer boo xam ne ay soldat ñu nekkoon ca biir ak seen jumtuwaay de guerre boo xam ne daal ban ko jëfandikoo daal di nañuy faat équipage ba nekkoon ca biir bulldozer ba. waa Israël Quds ñoo ko daal di xamle deux mille cinq cent soixante-treize ci ay massacre la Israël def ci cent quarante jours euh, de guerre yi nga xam ne amagul na téeméer ak ñeen fukki fan yi xam ne euh, am na boo guerre bi tàmbaleeg léegi lu toll ci deux mille cinq cent soixante-treize massacre muy ñaar ñaar junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett def nañ ko ci ay ñaawte foofee ca Bandagasa ñoom waa Israël ba tey ci xabaar yi ba tey ci xabaaru cër Mouhalim info ay manifestation amati ca kanamu buntu ministère de la défense ña ko doon def nag la ñuy sàkk mooy gouvernement bi daal di daal di démissionné mooy ñett ñaaw ak ñi mu kat la ñu bëgg mooy détenu yi daal di dellusiwaat maanaam daal ñeenu téye di ay prisonniers te waa Hamas téye leen ñu fexe daal ba ñu dellusiwaat loolu moo tax ñu def lu ni mel am na lool waa Israël ñu ngi koy ah, def te loo xam ne daal mel na waa États-Unis d'accord ñu ngi leen ko sàkku ñu ba ko Israël day nañu dañoo tàmbalee def di ciblé police yu waa Hamas xam ngeen ci bande Gaza gouvernement dafa am am na ay police yu fa nekk xam ne ñoom ñooy escorté camion yi nga xam ne mooy yëf sëf aide bi jëm ci askan yi di leen ñu ne Israël dañ leen a tàmbalee euh, ciblé di leen faat états yi nag tere leen ne nañu ko bàyyi Israël bañ euh, daal daal di bañ loolu ba tax na kon nee ñu bu ñu moytuwut beneen Mogadiscio dañ ko gis foofu ci bande Gaza ndax Euh, police ya fa nekk mu police bande de bu fa nekk Israël dañ leen a tàmbalee euh, daal euh, ciblé di leen faat lool bokk ci xabaar auditeurs yi Mouhalim info ñu jeexale ñu jeexale ci xabaar yi ci loolu Amérique defati na ko attaque bu méttee métti bu taratar la defati la defati ñeel ñi nga xam ne ñoo xaw si yoon yi ñu nekk ca mer Rouge attaqué waat leen ànd ceeg waa Angleterre attaque bu métti nag lu toll ci ay warab yu wuute ca capital bu réewum Yemen daan nañ koy attaque ak ay redd yu tara tar tar yu ni mel sax ne ñu méttiwaay bi mësi su ko gis ba gëbi taam rek léegi maanaam daal lii nga xam ne moom la waa États-Unis ak Angleterre defaat tey mooy attaque bi gën a métti bi ñu def ca foofee ci waa Houthi ah, yoona yi nga xam ne daal ay ah, laas ay frappe yu bare bay li leen sànni maanaam daal ay dizaine ah, de redd li leen daal di jii mi ngi am ci ngoonuk tey jii Washington Post daal di koy xamle sukkandiku ci kilifa yi bokk ci armee bu euh, réewum euh, euh, Amérique kon la ñu def tey tar na metti na lool ànd ak loolu ñuy def lépp nag ñi nga xam ne ñoo di waa ansaarullah ki nga xam ne moo waaw koo xam ne membre la ci bu politique bu ansaarullah nee na bombardement yi di Amérique di def ba boo ñu noppalu bu fekkee dañuy yaakaar dañ koy def ngir ñu ragal bàyyi ñoo ngi nax seen bopp tay lañu gën a déterminé wu ngir wéy di bandaga sa bara fa ba dal di baras maam dal, galankor mer rusbi, bi bato du dem bato du rawati bato bo xamne da jëm ci Israël wala bato boobu amerique ñoko mom wala bato bo Grande-Bretagne ñoko mom bato yeey mom duñ ci bàyyi bàyyi benn mu jall amerique lim leen di def defut lu way yok leen détermination loli moy mooy ci xabar yi mujj am ñeel diggante Israël ak Hamas du ci mu alim ngeen jëf di suba jam inshallah rabbi allah rabbi wa rahmatullahi ay di dem Europe ñii di dem ay Suisse ak ay ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay Irak teere Tanzanie